ndaw si jàppal sa jàppal ki ngay bëgganteel yéen ñaar bu ngeen see teraanga bu ne mën na cee génn ndaw siy jooy looy jooy mën ko damaa xamul kan la ci ñoom la ilaha parce que paa bi nee na ko waa ji ko am ko bu ngeen see lu ne mën naa génn seen diggante ndaw si di jooy ci kanamu paa bi looy jooy mën ko parce que gaañ ñi danoo bari xaw ma kan la ci ñoom léegi koy jàpp ak koy bàyyi ñëpp fi mu toll ay leader nga leen di def ça veut dire que fidé euh, bi doomu aadama di am njaga dafa am lu jig góor am lu jig jigéen parce que lii programme yàlla la yàlla moo programme ni jigéen yow moom boo xasee ba dugg ci société bi mooy société boobu nga mën a gérer mën a boole ñaari société góor nag yàlla mën na koo may muy liggéey ci rajo bee ak télé bee loolu jig na góor mooy mën nga am soxna fii am soxna fee mais jigéen mënoo am jëkkër fii am jëkkër parce que magasin bii defar doom ci jigéen la ko yàlla def te magasin boobu mënul jur doomu Ndiaga ak doomu Mouhamed Mbaye ci benn biir. kenn rek la mën a jural mais yàlla teral na Mouhamed Mbaye ba moom robinet bi mu yor seexluwul. mën naa may kii ndox mën naa may kee ndox te taf ko ndox mi du wàññeeku. Mm-hmm. bu ci këlër amee seen i la am ku boolam setul. dëgg la wala déet. Mm-hmm. tey ah voilà. Ah. Mm-hmm. ah mais mais yàlla moom la góor la yàlla may loolu. yow rek yaay boo xam ne tey maam sii moom ibi seytaan lay def ñu toll mais man Ndiaga. daa maandu daa maandu na ci. non du maanduwul Ndiaga. ak ah, ah, mooy taxawaayam nag Ndiaga cee maandu. mbëggeel mbëggeel. kenn xamul fu mu ne. ji nañ ko xool parce que xool nekku fa xool bu fa nekkoon kon tànk du dox dem. nekku fa kon bët du jooy. kon làmmiñ du tëwal lekk. maa ngi ci deret gi di circuler rek mais mu ngi circuler ci sa biir deret. tey jii euh, li am na ku duggoon suñu émission yi passé daal ni léeg-léeg nit def dara kon ndaw si jamoon ndaw si jamoon euh, ki mu doon bëggantil ca mariage ba. Mm-hmm. toog lu tax nga def nangam. lu waral nangam mais ndaw si war nañu ko laaj ko lan moo waral nangam njaga attention est-ce que xam nga ni jigéen léeg-léeg dina bëggante ak góor ëpp góor ëpp ku góor ki teraanga wala muy liggéeyee fenn foo xamante ni tey mën na fa xaw ma nu ko tubaab di waxatee jël xaalis ci banque. Mhm. prêt prêt waaw jigéen mën na def prêt. ndax ko góor gi mhm. waaw est-ce que xam nga loolu. Mhm. financé ko xaalis boo xamante ni famille bi xamul yaayam moom mi ko jur. xamul ñaa ngi wallaay la bu góor xamul mais moom ak waa ji mais ci biir mu sentir ni waa ji mu keneen. joytu bi pour mu joytu ko du gis lu dul jël paaka doo fekki waa ji parce que li muy def ci xelam mooy kii kon man maay sonn ci moom maay daj ci moom nangam mais mais mais mais njàngal lépp loo gis ci àdduna saaga moo ci ëpp solo mm-hmm. yonente bi dafa ne woon dina mas sa diidu jàmbaar pire nee na nee na du Modou Lo du Balla Gaye du Yékini du kenn inna masadi du yonente bi nee na jàmbaar pire man yam ni ko nafsahu mooy ki mën a maîtriser boppam indal gadabi saa yu meree yaa xam pere la parce que pour man li leen war a jotale njagaan nattal yow nga xalaat lan moo leen war a jotale ci ñaar ñu ba paaka am wàll lan moo leen war a jotale ba ndaw si diggante bi muy génne seen kër ba egg kër waa ji amul sago lan moo xam daa màndi ci mbëggeel xamuñu kenn xamul mais mais mais nag mais nag mais nag ay mbir yoo xam ne kenn mënu ko expliquer kenn mënu ko expliquer la mu sànq ki jam ñaari seex yi ba pare jam yaayam hmm, hmm. ñoo ko mën a jëndee ma ko digal dégg nga dégg dégg nga xam nga ni kooku ab layam. gàtt na lool lu ñu neex sol bu ñu neex génn. Mantoux est-ce que xam nga xale jigéen ñi ci li wax waa ji wax sànq. waaw demal. Uh-huh. démb. Uh-huh. fan fu ñu ñëw foofu. réalité yi suñuy réalité démb. il faut ñun ñu taxaw. xaw boo ne bul génn diggu njol ah, loolu amul. bul génn timis mun la loolu amul. jumbax awut yaa ngi ci biti léegi moom korop top moo xew. xale yi ñooy seen jimbey mu baax na. ñeent fukki góor de fu mu gisee sa jumbax noppee ngaa jur ku baax nga ne góor jigéen laa la ko ci kaw. ma ni ma ni 40 góor ci tubaab ñeent fukk ñeent fukki góor. 40 góor bu nu gisee sa jumbox yow jigéen noppee ngaa jur ku baax. dégg nga ah. fecckat bi ci kaw seen ku muy jur. toppal cosaan la xale yu jigéen yi sama ca boîte ba ku muy jur toppal toppal toppal albaladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi wala zi xabusa laa yaxruju ilaa nakidan suuf sunu yàgg a jaar njaga loo fa jëmbat ñàkk ko waaye borom tool boo gis bu bëggee toolam naat dina fexe ba ñàkk ko saa yu xëy di ko arrosé te di ko taaral albaladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi maa la wax ni la mboolem jigéen laa wax jigéen bu 40 góor gis sa jumbo noppee ngaa jur ku ñuy ormal ak ah, pourtant moom lu xew moom la ñuy yónni. mais nag gis nga mantu est-ce que yaa ngi dégg terme boobu Mouhamed maa moom seq ñu bàyyante. waaw. mooy andi jam-jam. waay bi. sama sama dégg na maa ngi moom maa nga ca waywa maa nga ca waywa maa ngi yow seq ñu bàyyante. maa ngi ca waywa maa ngi moo nga ca waywa. waa ginnaaw nag sequ leen bàyyante. te am na ah. yaa ngi ca jaamaan maa ngi ca jaamaan. ginnaaw yéen séqu leen bàyyante te yow taxaw nga position boo xam ne amoo moom maanaam yéen ñaar doo leen waru leen a bàyyante séqu leen ko séqu leen ko waaw moom mu bëgg a bàyyi nag su boobaa moo yow yow yow oustaz ndeysaan séquñu bàyyi déedéet baat boobu baat boobu njàng baat boobu diis na de ah dafa diis baat la boo xamante ni laa ilaaha yi baat la boo xamante ni ku fuuy wax na ko baat la xaw ma ku ko mën a wax waaye baat la boo xam ne ku fuuy wax na ko mm-hmm. ku audacieux wax na ko baat la bu neex bu mu wax waaw séqu bàyyante séqu ñu bàyyante koo ko naa daw. séqu ñu bàyyante. te dañuy tiim léegi seen far wi nii eh. maag yow séqu ñu bàyyante. paaka am ca. moo waral paaka am ca picc ak picc ak peel. ah picc ak peel a xewoon. Eh, léegi séqu ñu bàyyante ba ci jaaseeg paaka. maanaam taxamoo picc ak peel picc ak peel weesu nañ ko. maanaam xamoo li picc ak peel boobu. booba dee lañ ci doon séntu. peel maanaam yow dee. baa ma dee. ba déet maanaam pique ak pelle mooy. dund di ànd. di ànd di ànd di ànd. bu neex ba mbëggeel ci kaw mbëggeel ci suuf. waaw waaw mooy titre théâtre daaray Kocc ba yaa ngi ko doon mbëggeel ci kaw mbëggeel ci suuf. allo. Seck. allo bisimilah. Fatou. waaw na ngeen def. Seck. waaw ñu ngi leen di siyaare. ñu ngi lay fay Seck Seck Seck Seck ñu ngi nuyu Ndiaga Alaaji borom xam-xam ñu ngi lay fay bu baax kii bu génn kooku wax na lépp man man li may wax mooy jamono ji jamono ji ñu toll ah jamono ji ñu toll te ci réew mi jinne yu bari moo tax may digal nit ñi ku ko man na ngay jàng fàllax ak bala nga génn di ko ñaanal ak njaboot wala nga bindulu ko fàttee quarante fàllax ak naate quarante lixlaas quarante nga leen ko jox ñu koy naan di ko sangoo mm-hmm. waaw parce que léegi jamono bi ñu toll affaire seytaan yi dañoo bari ci réew mi lool. bëri na ci mhm. lool. dini yi bari nañ ci réew mi lool. waaw. musulaa yi. Ah, moom xam na ni xel am na benn sëriñ boo xam ni danaa jàng ba ay taalibeem li naa ci ko asamaan. Mhm. mais bi ko seytaane feeñoo benn jigéen mu nekk ko mun a séyal moom mu làng. mu ne ko naan sàngara bi mu ko naanee. tey nag ndaw si ndaw si ah, ah, mu ne ko rey ko. Euh, bu boo ko reyee suul ko mais bi mu ko reyee suul ko mais seetaan yooyu daa leen ci penc ba wax ko daa di diw mi ngeen yaakaar rey na ko mi ngi suul ci ron na la ñu bari ñu ngi def li ñuy def te ñu ko affaire seytaane la te bi ñi dañu lay jox benn tur boo xam ne turu seytaane la muy jigéen pour nga bëgg am alal gi nga jigéen ñi nga naan man dama am ay jinne dama dugg fii génn fii oh. jigéen ñi woote jinne yëpp te nag mujj mujj gu ñaaw rek la ñuy mujj jinne mm. léppam da koy jaay ah ki génn léegi kenn amatul looy wax. walaay dëgg la jàmbaar la waaw kooku wax na lépp. jàmbaar la man nag solution laa joxe. Fatiha 40. Mhm. Falaxe naasa 40 Lixlaas 40 Ayatul Kursu 40. boo amee ndoxam sam-sam baax na nga ci sang doom ñu ciy naan. doom yi nga jàngee leen balaa kenn génn na jàng Fatiha Falaxe naasa ci raay ci kanamam tey taa nañoo dañoo bari de. Mhm. waaw parce que léegi